mbokk yi compagnie Serigne Seck Sénégal C3S moo ñëwaat ak yéen ci jongante bi mu baaxoo amal at mu nekk tuddee ko yaatal mbindum alxuraan ren di ñeenteel bi édition ku ci bëgg a bokk da bind lu tollu xët ci alxuraan bind sa tur sa adresse ak sa numéro téléphone yóbbu ko ci butigu c 3 bi la gën a jege ci Sénégal wala fépp foo xam ne raabita bi wala fédération bi ëmb jàngalekatu alxuraan yi ci Sénégal am na fa dépôt candidature yi di a jeex fanweeri fan ak benn jagleel ko région yi di Matam Tambacounda Ziguinchor Kolda Sédhiou ak Kédougou ngir gën a suqali mbind mi ci gox yooyu le ñett ñi jeetu ci concours national bi dinañu am neexal yu am solo yu ñu leen jagleel premier bi dina am 6 millions deuxième bi 5 millions 500 troisième bi 5 millions kuréel bi saytu concours bi mu ngi fàttali candidat yépp ne ku ci nekk benn dépôt la war a def ak foo ko mën di defee ci biir réew mi kayit wi ngay déposé it yaa ko war a bindal sa bopp ku ci bëgg yeneen i leeral wooteel 76 751 43 42 wala wala 70 736 36 36. mbokk yi ginnaaw ba ñu sante yàlla julli ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñuy tàllal suñuy loxo di ñaan suñu borom mi nga xam ne mooy borom kattan te mooy borom man te mooy borom sañ-sañ Cheikh Mouhamadou taxaa mi nga xam ne moo fi toogal Cheikh Sëñ Touba nekkal fi lislaam yàlla gën ko may kattan ak wér ak tal ba lépp loo xam ne yéene na koo liggéeyal lislaam mu def ko te defe ko ne kawe njottam te ñu ànd moom te daje ci ngërëm ak suñu borom képp koo xam ne itam lislaam a tax a jóg ci ngay xëy ci ngay gont mooy sa itte yàlla na suñu borom taxawul. taxawu moom itam jàppale la ba lépp loo xam ne yéene ngi ko ci nga am ko ci ta daje cee ngërëm ak ña nga ko àndal ñëpp ginnaaw loolu nag mel ni lii fan yi yëpp ñu ngi doon waxtaane ci loo xam ne mooy ñun doomu aadama bu nekkee ci kaw suuf sii lan mooy li nga xam ne mooy doxin wi ñu war a doxee ak nan lañu war a mel mu mel ni nag suñ borom bu mu bindee doomu aadama bind ku rek sànni ko ci mbooy gi waaye da ko bind waajal ko ci waajtaayu nan la war dundee ci kaw suuf waaj ko ci waajtaay itam àdduna ji alaaxira jeeñ jëm nan lay mën a def ba mun caa mucc loola mu kon mu mel ne suñu borom wàcce woon ak doomu aadama ndax wa waajal na ko ci àdduna si jëf def ci kaw suuf si lépp loo xam ne mooy xéewal gu doomu aadama di mën a soxlawoo waaye ba mu ko jo ba mu ko defalee xéewal gi gi nga xam ne doomu aadama dana ko mën a soxlawoo ci àdduna si biir yëmu ci loolu da ce boole itam jox ko jumtukaay yi nga xam ne mooy mu mën a tax a mu mën jariñoo jumt xéewal gi nga xam ne def na ko ci kaw suuf xéewal yi bokk na ci jumtukaay yi mu ko jox nag mooy jox na ko xel jox ko kàttanu yaram ak ak jox ko itam mu mën a yëg bànneex ci li may bànneexu di man man caa man caa yëg itam mën caa yëg mën caa am li nga ci bëgg ci ci bànneexu loola ndax xam nañ ne mënoon na koo jox xéewal gu yaatu jox ko xel gum ko mën a amee waaye nag bànneexu jot jot bànneexu la muy bëgg bànneexoo man man koo man caa bànneexoo na mu ci bëgg itam loolu bu ko ci booliwut day mel ni ba tey des na waaye nag suñ borom dimbaleenu ba ñett yëpp def na ko jox nañu kàttanu xel guñ mën a jëfandikoo li nga xam ne moo nekk ci kaw suuf jox nu kàttanu yaram gu ñu mën a jëf ñu mën a dimbalee ci ñu mën a jëfandikoo li nekk ci kaw suuf ba noppi itam defal nu ak loo xam ne danañ ba jotee bànneex danañ ko mën a yëg nañ ko war a yëgee buñ bëggee bànneexu ci dara itam danañ ci mën a bànneexu ñu ngi niñ ko war a bànneexu mu mel ni kon waajal na doomu aadama ci wàll ci wàll yëpp waaye yemut ci loolu nag dafa ba mu ko bëggee waajal ci àllaaxira jee nga xam ne mooy jëm te xam na ne àllaaxira jee yoon yoon wala ci wala ci wa njëkk ci li la ciy dimbali mooy nga nangul suñu borom ne moom rek la loola nag tax na itam ba nga nangulee ne suñ borom moom rek moom rek lay am na ay waajtaay yoo xam ne waajal na la ko ba tax li nga na nga war a doxee ci loolee nga xam ne moo lay wane suñ mooy wane ne yow suñ borom xam nga ne moom rek la mu wàcc waajal la ca loola lam la ca waajalee mooy jox na la xel waaye ba mu la joxee xel itam xam na ne xel doonut loo xam ne doy na képp ci àggale li ci ngërëmul suñ borom ndax munoo koo tandatu mënoo koo xalaat mënoo koo andi ci sa xel xelum bopp waaye da ko war a defee ci ni nga xam ne ni la ko suñ borom bëgg loola nag ba mu xamee ne lii mënoo koo def ci lu dul ci ni ko bëggee tax mu yónni ay ndaw ñu ñëw ngir nu won ngir won li nga xam ne moom la moom lañ ko war a jaamoon nan lañ ko war a defee ñooñu mooy yonante yi yonante yi nga xam ne moom la suñ borom yónni ñooñee nag nga xam ne ñoom la yonante ñoom la suñ borom yónni bokk na ci ki nga xam ne nag mooy sayidna muhammad salallahu alayhi wa sallam moom nga xam ne mooy suñu yonent diine jim ñu andi lii tam mooy lislaam ñu war a doon ñoo xam ne dañoo war a tënku nag kon ci li nga xam ne moom la ne yonent bi salallahu alayhi wa sallam andil ndax loolu la suñ borom wax ne na ngeen yem ci li nga xam ne moom li la yonent bi andil bu leen waxee ne toog taxaw leen fii taxaw leen fii bu leen waxee ne jàll leen fii na ngeen jàll fii waaye bu leen weesu loolu bu leen taxaw na nangeen taxaw bu leen doxloo na ngeen dox loola nag ñu xam ne kon am na ab leetar boo xam ne moom la indi ngir woon ne nii lañ war a doxee nii lañ war a taxawee fu mu àggee ci barab buñ bëggee dox ci lii lañ war a dox buñ bëgg ñu waree taxaw itam ci lii lañ war a taxaw loola nag comme ab leetar la faw des ko war a xam xam ga nag mu neesu koo xam ci tandatu mu ne su koo xam ci xalaati bopp sa xalaati bopp waaye comme ab leetar nag faaw da war a tiim leetar ba jàng ko xam la ca nag ngir mën a doxe ci ni nga xam ne moom la suñu borom bëgg loola nag moo tax ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam le ne far sàkku xam faratali ci bépp jullit Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne itam moom moom ci ci ci ci jéego yi yonent bi la doon dox ci la doon xam itam moom it mu wax xamal nu ne xamal nu ne ni ngeen war a def mooy nangeen ngeen góorgóorlu yéen ñëpp jëm ci jéem a xam seen farata yi nga xam ne moom la suñ borom warata waral ci ñun xam itam li nga xam ne mooy tere yi nga xam ne moom la tere ci ñun ndax loolu mu ne su koo xam ci lu dul xamlu mu ne nag képp koo xam ne nag dangaa jóg ngir xam lu loolu am ku bëgg taxaw sa digganteeg yow ngir bëgg laa xam le ne xam lu googee aju matu ko wala jëru ko na nga xam ne kooka saytaane ku taxaw sa ci sa taxaw ci sa kanam la ngir bëgg laa yàqal fi nga war a jëm te na nga xam ne seytaane soosee nag na xam ne moom lépp loo xam ne dana ko yàq bu ëllëgee dana taxaw ci kanam suñ borom <coughs> ndax dana taxaw ci suñu gorom te kanam bu taxawee ci suñu gorom kanam suñ borom suñ borom dana ko fay ci li nga xam ne moom la doon jëf moo tax ba ndax nee na rawatina jamono jii nga xam ne moom lañ nekk nga xam ne xëy na woote yi bari na xam-xam yi itam bari na ndax nit ñi kenn ku ne mën ngaa mën ngaa yor sa xam-xamu bopp mën ngaa yor sa gis-gis yi nu bopp ba tax na bu fekkee ne yow xamoo li nga fi nga war a jaar xamoo fi nga war a teg sa tànk man ngaa man mën nañ laa sërxal nga jaar foo xam ne waroo faa jaar moo tax ba nee na nag faw boo bëggee xam fi nga war a jaar xam ni nga war a bàyyi xam li nga war a dox fawu da war a am xam-xam ndax xam-xam lépp looy def te àndal woowu ko xam di nga la ngay def lu mu doon nee na loola man yàq mën na caa dugg kon nag li ñu war a ñun joomi jaam yàlla yi moo di ñu ragal yàlla te góor góor du ci xam lu xam lu ci góorgóorlu ci xam suñ mbir yi diine xam yitam fi ñuy teg suñu tànk xam fi ñu ko war a teggi te loolu fañ ko war a teg kenn wërta tax ñu teggi ko fañ ko war a teggi itam kenn wërta tax ñu teg ko fa nañ ko def rek ngir jàmm jëmi suñ borom bu ko defee danañ daje ngërëmul suñ borom yal nañu suñ borom jéggal ñun ñëpp defal ko itam bépp jullit ñi nañ ko jéggul itam ndax mooy ki nga xam ne ku ko jéggalu mu jéggal la rabbana xfir lana wa li ixwanina alladina sabaquna bil imaan wala tajal fi qulubina xillan lilladina amanu rabbana innaka raufur rahim ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه توبة عبد ظالم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نصورا يقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والقلم وما يسطرون mbokk yi compagnie Serigne Seck Sénégal c 3 moo ñëwaat ak yéen ci jongante bi mu baaxoo amal at mu nekk tuddee ko yaatal mbindum alxuraan ren di ñeenteel bi édition ku ci bëgg a bokk da bind lu tollu xët ci alxuraan bind sa tur sa adresse ak sa numéro téléphone yóbbu ko ci butigu C3S bi la gën a jege ci Sénégal wala fépp foo xam ne raabita bi wala fédération bi ëmb jàngalekatu alxuraan yi ci Sénégal am na fa dépôt candidature yi di mbindu bi dina door benn fan ci weeru janvier 2021 war a jeex fanweeri fan jagleel ko région yi di maatam Tambacounda Ziguinchor Kolda Sédhiou ak Kédougou ngir gën a suqali mbind mi ci gox yooyu le ñett ñi jiitu ci concours national bi dinañu am neexal yu am solo yu ñu leen jagleel premier bi dina am 6 millions deuxième bi 5 millions 500 troisième bi 5 millions kuréel bi saytu concours bi mu ngi fàttali candidat yépp ne ku ci nekk benn dépo la war a def ak foo ko mën di defee ci biir réew mi kayit wi ngay déposé it yaa ko war a bindal sa bopp ku ci bëgg yeneen i leeral wooteel 76 751 43 42 wala